T'es toujours informé sur SeneInfo xibaar yu wóor te leer ci bile jamono Restez toujours informé sur SeneInfo xibaar yu wóor te leer ci bile jamono fii la mburu bi tàngee fii lay xayam xayame eh. xibaar yu wóor te leer doxale jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci bile jamono Seneinfo point net Seneinfo International jërë ngeen jëf di am ak contentement comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di dikk ak yenn ci seen yor yoru Seneinfo ma di ko amal ba tey ak sama naataango bii di Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf ma bàyyi ko mu nuyoo rek ñu daal di tàmbale ak yenn si seen yor-yoru seen info Bour Sine maa ngi lay nuyu. waaw waaleykum salaam soxna Asel maa ngi lay nuyu yow itam di nuyu suñu cadreur euh, ak di nuyu itam mbokku internet yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel saa su ne suñu différentes plateformes yi di amaat mbégte bu baax rek. Mm-hmm. di dikk ak ñoom ci yor-yoru seen info. jërëjëf Bour Sine comme ni ñu koy defee saa su nekk rek xam naa tey dinañ jàll si actualité yi nga xamante ne nii moo fi gën a fës. si loolu point bu si njëkk dinañ waxtaan si procureur euh, Ibrahima Mbaxum mi nga xam ne amaloon na ab conférence de presse ni ki démb daal di si yëkkati ay kàddu kàddu yooyu yëpp ñu si ñëwaat. ñu jógee foofu ñu ñëw si Ousmane Sonko mi nga xam ne nag moom tamit amal na ab déclaration bi mu jot a def si guddi ay 23 heures def lu lu mu jot a wax si déclaration bi yëpp tamit dinañ si ñëwaat si loolu tamit ñu gis ne étudiants yi tamit daan di leen jox feetu Pâques si ni mu gën a gaawee ngir. ngir ñu mën a moytu boobule boobule procès bi nga xam ne à chaque fois que mu yëngu maanaam jafe-jafe day bëri bokk na si lu tax tamit ni ko démb ñu daal jox yooyu les étudiants vacances su Pâques si ni mu gën a gaawee. bu ñu jógee foofu rek daal di jeexal ak wàllum sport. nekk match éliminatoire coupe d'Afrique des nations deux mille vingt trois bi nga xam ne waa U23 ñu ko amaloon démb ak Mali ñoom nag daan nañ di leen éliminer su ñu jógee foofu tamit ñuy gis ne suñu gaynde yi ñoom tamit daan nañ di qualifier si CAN Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 loolu yëpp ñu ñëwaat si buur laata loolu nag ñu tàmbali ak suñu premier point nekk benn conférence de presse yi nga xam ne procureur Ibrahima Bakhoum amaloon na ko démb daal di yëkkati ay kàddu yu bëri moom nag dafa mel ni euh, boobee conférence man nañu see tënk ne kii di Ousmane Sonko moo taxoon mu def ko ndaxte yu bëri yu mu fa yëkkati kàddu yëpp sax mën nañu wax ne mu ngi ko jëmalee si kii du Ousmane Sonko wax na tamit si mbirum hospitalisation bi nga xam ne jotaloon na ko amal fële ca suma assistance ak ginnaaw ba ñu ba mu xamalee ne xamul ban feebar la kooku Ousmane Sonko ban feebar la amee ginnaaw ba mu xamlee ne ñoom xamuñu ko ba tey jot naa wax ni kii du Ousmane Sonko daan na dépensé lu tolloo ko six cent mille si wàllum wërgu yaramam wax na tamit si docteur Babacar Niang nga xamante ne nii daal ñu yoon daal di ko topp si mbir moomu ba tey di ko topp tamit si non assistance à personne en danger si wàllum kii di Doudou Fall ginnaaw bu mu ñàkkee ba kenam jour le 16 mars boobu mu amoon ci ay blessure loolu tamit bokk na si lu tax ñu jàpp ki di docteur Babacar Niang si loolu tamit muy xam leen ne kii di la Boulos moo faj kii di Ousmane Sonko procureur di xam ne nag ginnaaw bu ñu dégloo boobu le docteur moom moom lu muy xam leen mooy faj na Ousmane Sonko waaye du wax si dossier bi ndaxte secret médical la loolu la xamle ba tax na daal mbir mi na di daana di bëri ay jafe-jafe ndaxte bëri na ay ay arrestation tamit bëri na ñoo xamante ne nii yoon mu ngi leen di waaj de ak ñi nga xam te ni jot na leen déglu si boobu leen mbir ñu ngi si tamit procureur daal di wax si mbirum Yarga Sy mi nga xam ne daal nañ ko déféré ndaxte dañoo wax ne moom am benn euh, substance boo xam te ne ni na di ko def si Ousmane Sonko ba tey procureur bi si mbirum Yarga Sy Ah, euh, li nga jot a yaatal noonu euh, ki nga xam ne moom mooy procureur général bu Dakar di Ibrahima Bakhoum euh, démb comme ni nga ko waxee ànd ko procureur de la République bi nga xam ne moom mooy Abdou Karim Diop ak it procureur de la République bu Pikine. Euh, ñu àndoon ci boobule conférence de presse comme ni nga waxee nag jot na fa euh, yëkkati ay questions yu bëri bokk na si rapport bi nga xam ne euh, Cour des comptes defoon na ko ci ni ñu yore woon koppar yi yu xeex jàngoro yi Covid 19. wax na itam ci li nga xam ne moom mooy mbirum Ousmane Sonko. Ousmane Sonko hospitalisation am fële ca Sami ak coow la ca jot a juddu wante itam teg loxo bi nga teg loxo ki nga xam ne moom mooy docteur. Babacar Niang mi nga xam ne mooy njiital euh, njiital euh, sami boobule euh, wax na itam ci comme ni nga ko waxee kooku lee di Yarga Fall ma ñu jàppoon ak daal li ca jot a xew Yarga si Yarga si en tout cas li nga xam ne comme ni nga ko waxee rek ñëpp daal liñ ci gën a jàpp peut-être moom mooy. mbir mi nga xam ne euh, wax na ko euh, jëmale wax na itam ci mbirum commando euh, loolu ñu woowee commando Pastef mm-hmm. ak jàpp bañ leen jàppoon ak yi ni mel mais comme ni nga ko waxee rek li ci gën a fës daal moom mooy li nga xam ne wax na ko ci hospitalisation bi nga xam ne Ousmane Sonko amaloon na ko foofalee ci suma assistance mm-hmm. xam nga Ousmane Sonko nag dafa doon day wax ne day jiiñ ñi nga xam ne ñoom ñooy régime bi waa BIP plus précisément muy police di benn corps police mm-hmm. BIP boobule nee na ñoom ñoo ko euh, daal sotti ab substance euh, te nee na nag dañoo bëggoon faat li nga xam ne moom mooy bakkanam mhm. wante bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne procureur wax na ko démb moom nag euh, nee na daal ci saytu yi nga xam ne daal jot nañ ko def mbirum investigation yeeg yi ni mel mhm. xool nañ seet daal wante ñun mu ne gisuñu luy mën a wane ne kon luy mën a fësal mhm. tentative d'assassinat boobu nga xam ne Ousmane ko wax na ne dañ ko bëggoon dañ koo bëggoon amal ci ci moom ci moom moom la bu ñëwaatee ci li nga xam ne moom mooy euh, hospitalisation bi nee nañ dem nañ ci hôpital ba euh, def na jot nañu interroger médecin bi nga xam ne moom moo faj médecin spécial Ousmane Sonko boobule mais moom it nee na leen euh, bulos secrétaire secret médical bi tax na ba du leen wax Euh, daal ana lan moo nekk ci dossier boobu ana lan moo jot waa ji Ousmane Sonko ba tax na kon ñoom amuñu peut-être benn information ci ana lan moo jot réellement ki nga xam ne ki nga xam ne moom mooy euh, Ousmane euh, Sonko ba léegi peut-être liñ ci liñ ci ñoom liñ ci jàpp daal moom mooy kon tentative d'assassinat boobu nekkul loo am ne eh, nekkul loo xam ne am na ci mbirum eh, substance boobu it eh, waa jooju ñuy woowee kii di mooy yar bi ma juumal te bokk ci li nga xam ne moom sax maamu Pastef la d'ailleurs mm-hmm. ku bokk Pastef la Ousmane Sonko am na lu am na lu mu si wax ci mbir moom mm-hmm. buñ buñ jegee ci Ousmane Sonko waa mm-hmm. dinañ dinañ développé foofu it kooku it bañ koo jàppee bañ ko dégloo moom nee na vinaigre la joxoon kii di njiital Pastef yenn saa yi dañuy utiliser vinaigre pour bu leen gaz lacrymogène sonale noonu ñu mën ko ko dañ ne dañ ne boo te asperger ko dina la dimbale daal ba kii bi du la du la du la sonal noonu. bu ñu ñëwaatee yam ci li nga xam ne moom mooy euh, arrestation ak garde à vue ak euh, li mujj daal ci mbirum ki nga xam ne moom mooy euh, docteur Babacar Niabi nee na it gannaaw bi nga xamee ne famille Doudou Fall déposé woon nañ ab plainte ci ginnaaw ga it ñoom bi ñuy ci seen investigation mu ne gis nañ ne daal. Euh, kii di euh, Doudou Fall mu ne daanaka def na lu toll ci vingt euh, vingt quatre heures booy xool foofu foofule te jëluñ ko en charge yu demee noonu ñu jàpp ne nag peut-être loolu tax na ba mu loru ci boobule mm-hmm. plainte ñu kon déglu ci ki nga xam ne moom mooy docteur Babacar Niang nga xam ne nag nee na bi ñu demee daal ba soxla ko gisuñu ko après si lañ def ay renseignement ba xam ne kon mu ngi euh, fi nga xam ne moom mooy Medina Ndiatbé euh, fañ ko tegee loxo indi ko jot nañ ko déglu ba bàyyi woon ko wooluwaata nañ ko altine euh, fi mu nekk nii li nga xam ne peut-être moom moo ci bees moom procureur wax na ko démb nee na dinañ ubbi ab information judiciaire ci ki nga xam ne kon moom mooy docteur Babacar Niang moom le soxna Asel yaakaar naa daal mbir moomu mm-hmm. leneen nit xanaa peut-être li mu wax ci mbirum commando boobu ñuy wax commando boobu ñuy woowee commando Pastef euh, dikkaat nañ si nee na loolu gannaaw it ay gëstu yu ñu doon def la mu ne di ko topp di ko topp di ko topp ba mu yóbbu leen si yooyu leen nit mu ne ñu jàpp leen mu ne it euh, ñoo xam ne la dañ doon waajal ay euh, événement li ñu woowee attentat ci ëllëg jour 30 mars bi nga xam ne ci la ñu waroon amalaat lii di procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang mu ne lu ci mel ni ay daal ay nit yu ñu ciblé woon Mm-hmm. ci waxu procureur nag laa wax ba léegi quoi lu si mel ne ay nit yoo xam ne leen ciblé woon pour attaquer leen lu si mel ne ay ministre lu si mel ne ay euh, magistrat euh, ak yi ni mel mu ne nag euh, ba ñu toppee seen biir def seen enquête kon neen si lañ dem ba teg leen loxo te it nee na gis nañ ne am nañ lëkkaloo mm-hmm. ak ñii ñu naan mf MFDC moom procureur tamit wax na loolu le ci mm-hmm. boobu le mbir soxna Asel ci côté boobu daal loolu laa fa mën a loolu laa mën a développé waaye bu ñu ñëwaatee si côté boobu ñu gis moom procureur muy naan tentative d'assassinat bu Ousmane Sonko di wax amul alors que ñoom ñu ngi téye kii di yarga si di ko ne di di ko jiiñ ne moom dafa bëggoon a rey kii di Ousmane Sonko côté boobu ban jàngan nga si mën a am alors que moom mu ngi wax ne tentative d'assassinat amul ba pare ñu ngi téye kii di yarga si ba su ma juumul sax daan nañ di ko defee rek. waaw peut-être euh, mën na kii bee jeexagul mën na am li nga xam ne moom mooy euh, enquête bi ak daal xam nga mu yoon dafa yenn saa yi day yàgg day bëri ki mais d'après fi nga xam ne fii lañ toll. Mhm. waaw ñoom daal investigation bi ba fi ñu toll nii. Mhm. ci liñ jàpp moom mooy tentative d'assassinat bu Ousmane Sonko wax euh, amul. Mhm. léegi nag kooku yarga yarga bu du njortu ne du ñàkk ne peut-être bu ñu demee ba ci biir. bu ñu seetee it ne laalewul dara ak it mhm. effectivement bu fekkee vinaigre kese boobu la yoroon mhm. euh, te it mu bokk ci li nga xam ne moom mooy euh, Pastef jege Ousmane Sonko mhm. mën na dinañ ko bàyyi bu mbir mi jëm waaw bu jërëjëf ba tey ñu ñëwaat si kii di Ousmane Sonko rek ñu gis ko moom tamit démb mu amal ab déclaration déclaration bi nag mën nañ ne dafa daf ko def ngir tontu kooku di procureur ginnaaw bu mu defee conférence de presse sàmm si suba si ñu gis moom Ousmane Sonko mu yor certificat médical maanaam benn enveloppe la ñu wan xamuñu nag lu nekk ci biir mais mu ngi xam le ne certificat médical la moom bàyyiwu ko fa ndax te mu ngi naan su ko fa bàyyi woon dinañ ko jël sa ngir xam lu nekk ci biir te loolu c'est privé si moom ndax ndaxte wërgu yaramam la mhm. loolu daal la fa Ousmane Sonko wax si loolu muy xam le tamit ne yàgg si mii nga xamante ne nii jàpp nañ ko ku ko sësoon la ne moom pare woon na ngir dënk bakkenam kii di yàgg si ndaxte xam na ne nit ku ko jege la mu daal di fa yëkkati ay kàddu daal maanaam lépp lu lépp li nga xamante ne ni procureur bi daal na di ko fa yëkkati si suba si Ousmane Sonko démb si déclaration gis nañ ne daal na di teggi lépp maanaam euh, si si nuñ ko mën a waxee daal na di wax ne dara du ci dëgg si ay waxam buñ ko dégloo bu baax a baax xam naa dama lay bàyyi nga ñëwaat si rek laata ñuy euh, continuer. waaw moom it euh, Ousmane Sonko gannaaw bi nga xamee ne euh, procureur euh, kon bu Dakar amal na sorti boobu moom it sentiroon na besoin communiqué comme ni mu koy defee guddi joxe na def na déclaration comme ni mu koy defee d'habitude mais seetlu bu njëkk bi moom mooy déclaration bi olof la doon njëkkee ñëw def français mais bi yoon français la njëkkee mm-hmm. parce que gis na ne ki nga xam ne moom mooy procureur message boobu mu amal démb mm-hmm. communauté international la ko adressé loolu la jàpp moo tax it moom fa fallait que mu indi benn réponse procureur sax journaliste yi dañ ko mujjee forcé pour que mu wax olof bi parce que français bi presque wax na ko lu mat deux heures de temps su ma jumulee presque mat deux heures de temps c'est comme si euh, mu ngi adressé wu plus. Mm. ñi muy gën a waxal mooy. à l'international euh, plus que fii nii. olof bi sax da ngaa tënk booy xool. loolu tax nag ba Ousmane Sonko it mu sentir nécessité indi benn réponse internationale mm-hmm. indi benn réponse boo xam ne kon euh, sur le plan international tamit ñoo la adressé boobu les message mm-hmm. wax leen wax ak ñoom wan leen ne kii di Macky Sall daal ni muy doxalee ak yi ni mel moom it jàpp na ne kii di procureur kii di procureur boobu it dafa jàpp ne rek kon ci soldu Macky Sall la nekk. Mm-hmm. ak yi ni mel comme ni nga ko waxee it. lii di euh, kon mbirum euh, dossier bi. Mm-hmm. effectivement wax na si loolu euh, moom mm-hmm. Ousmane Sonko nee na xamoon na ne gars yi dinañu jéem a def dinañ jéem a jot ci boobu le dossier peut-être mm-hmm. nee loolu tax na ba kon dossier médical am bàyyiwu ko fa bi muy dem daf ko yóbbaale comme ni nga ko waxee nag war nañu benn enveloppe mooy ko war na war nañu benn enveloppe rek xam nag enveloppe mais war nañu enveloppe daal nee na mu ngi foofu mu ne bi muy dem dafa yóbbaale li nga xam ne moom mooy euh, dossier am ba ñii di kon euh, daal gars yi amuñ si benn accès nee na it euh, du ci joxe benn information parce que. Mm-hmm. mais jàppoon ne ni ñu def ba xam lu mu dépensé si boobule hôpital maanaam lu toll ak 600000 ni ñu def ba xam ko jàppoon ne Ousmane comme ni mu ko waxee bu fa bàyyi woon lee dossier ni ñu siiwalee somme bi mu fa fay est-ce que du noonu lañ naroon na siiwalee lan moo nekk état de santé non mais yaakaar naa fi ñu toll nii. surtout accusation tentative d'assassinat. Mm-hmm. dafa rëy. Mm-hmm. Euh, loolu tax na ko waaw loolu tax na ba euh, tey maanaam yooyu la information yooyu soxla woon nañ ko parce que mën nañ sukkandiku. Mm-hmm. tey si yooyu la information mën nañ ci sukkandiku ba xam effectivement ana li mais ñoom nee nañ. Mm-hmm. daal gisuñu dara dara dara benn daal li ñu wax daal mooy li ñu li ñu li ñu li ñu kii ne jàpp na waa ji mooy asma. affaire asma daal euh, lañ ko wax mais tey comme que tentative d'assassinat am na effectivement loolu da doon am solo benn pièce bu am solo la doon nekk xaw ma nag pièce à conviction lañ koy wax ci enquête mm-hmm. mais loolu tey bu ñu ko amoon day tax ba mm-hmm. euh, dinañ mën a sukkandiku si loolu euh, wax ndax tentative d'assassinat am naa déet surtout substance boobu substance bi Ousmane Sonko moom nee na mm-hmm. carrément mbir yi bokkul moom nee na instant yi kii di procureur day jéem indi lëndam mais nee na mbirum yargas yi yargas yi moom nga xam ne jegeñaaleem la attan na ko jébbal dénk dundam Mhm. nee na loo xam ne kon li mel nee na yarga si ko jox na ko te bineegar boobu la ko jox pour ko mhm. gannaaw bi nga xamee ne amoon nay jafe-jafe eh, bi bi ko saxaaru la gaz mhm. eh, nee na it fi mu nekk nii li nga xam ne moom mooy eh, moom mooy substance boobu analyse ñu ngi koy defee bitim réew te nee na ñu ngi xaarandi ci bés yi ñu jëm li nga xam ne kon moom mooy yooyu les analyses ñu ñu jot si comme ni mu koy defee appel à résistance bi mu doon def euh, defaat na ko nee na li nga xam ne moom mooy euh, le 29 ba sub tey bii mm-hmm. ak le 30 mm-hmm. ak euh, le 3 le 3 nga xam ne moom mooy veyu 4 fête nationale bu 4 avril bi yëpp nee na dinañ ci dinañ wàcc manifester te mm-hmm. nee na ci auto muy autorisation ak mu ñàkk nekk autorisation kon dinañ manifester kon nag dynamique bi mu nekkoon moom jiital Pastef mhm. dynamique gu gatsa gatsa boobu mu fi waxoon ak yooyu génn gu si daal mu nekk ni daal moom ci kii boobu la nekk parce que moom dafa gis ne il est en face d'un état voyou mhm. état boo xam ne dañoo bëgg a fexe ba du bokk ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy élection présidentielle bi mhm. moom it mu gis ne méthode bi mu yor nii moom rek la mën a am pour Ousmane Sonko moom méthode bu taxaw nii rigueur kii muy dynamique bi mu jël nii moom pour moom moom rek la mën a am mhm. jàmmaarloo gars yi songu leen ndax moom nag euh, dafa jàpp ne bu demee élection mooy gagné kii da koy gagné de mhm. Sonko instant mhm. loolu lay def ci bopp bi jàpp na ne jàpp na ne bu demee élection dina remporter yi élection ba tax na fi mu nekk nii kon bakkanam la siy teg bakkanam da koy jaral daal lépp ah, gañ baa gañ gañ baa perte boobu ci dynamique boobu la nekk ba léegi waaw comme ni nga ko waxee rek ñu gis ko moom Ousmane Sonko muy woote waat ba tey maanaam tey jii amal nañu ab euh, manifestation xaw ma marché lañ ko mën a tuddee bu ñuy euh, amal maanaam foofu ca euh, Samb Medina su ma juumul waaye si loolu buur ñu gis ne ñii di étudiants yi daal leen di leen jox vacances su Pâques vacance bi nga xam ne ñu ngi ko waroon a amal. fii ak ci kanam waaye ñu daal di ko avancé ngir yooyu les tensions yi nga xamante ne nii nar na fee am yooyu les tensions sax ni ma comme ni ma koy waxee yooyu les tensions yi nga xam ne njort nañu ne dina fi am tax na ba ñu jox euh, vacances su pack yi les étudiants ndaxte à chaque fois tamit euh, mbirum Ousmane Sonko bu yëngoo li si yëngu dafa nekk lu bëri day bëri tension te tension yi si ëpp tamit ñu ngi koy remarqué au niveau de l'université parce que lu si mel le 16 mars bi ñu jógee ba ñu xëyee ci suba si maanaam ñoom ñoo njëkk def lii di ay manifestation foofu lañ ko njëkk remarqué est que loolu tamit bokkul ci lu tax ñu jox leen ay vacances ngir wàññi yooyu les tensions ak tamit bu ñu gisee Ousmane Sonko à chaque fois muy dem muy dem wuyu ji convoi bu muy def dañuy bëgg a jaar ci route nationale bi romb ay UCAD ak ni ñu mel ba à chaque fois day indi ay problème ay lacrymogène di fa am ak yeneen loolu tamit foog naa ne buur bokk na ci lu tax ñu daal di jox bile vacances ngir wàññi tension yi nga xamante ne ni mën na cee am buur ma bàyyi la nga indi ci ay yaatal si boobule si boobule vacances yi nga xam ne jox nañ ko étudiants yi. waaw soxna Asel comme ni nga ko waxee rek euh, université Cheikh Anta Diop de Dakar gis nañ nag euh, def nañ comme ni nga xam ne ministère de l' éducation nationale euh, def nañ ko maanaam pousse avancé datu li nga xam ne moom mooy fête yi fête yi nga xam ne PAK da si bokk ak semaine nationale de la jeunesse ak lii di 4 avril bi ñu mu ngi war a nekk nag ñoom bu waa université le premier ak le 11 entre le premier le 11 avril la waroon doon yooyu les fêtes mais gis nga ne avancé nañ ko kon ba démb ci mardi. vingt 28 bi mu war a jeex la 11 li ko waral wax nga ko dañuy moytu ay tension am ay trouble yu yu mel noonu am ndax comme ni nga ko gis nañu ne njiital Pastef saa su génnee rek di waaye di war a wuy ji procès ak yi ni mel wala mu woote manifestation rek mm-hmm. gis nañ ne dëkk bi day yëngu kon nag nguur noonu lay doxee nguur day prévoir dañuy jël les les les les devant ci mbirum université boobu nga wax sax sànq def nga ci benn jàngat bu am solo man yaakaar naa ne euh, loolu mooy tax du ñuy bëgg Sonko di am emprunter voie boobu noonu mooy voie bi nga xam ne moo jaar euh, mm-hmm. buntu si avenue si Anta Diop bi ndax da lay la ndax da lay bu jógee kii nar a jaar avenue Cheikh Anta Diop moom mënu mm-hmm. fa jaar nii rek affaire yi calme nii nii nii loolu du man sax jàpp naa ne est-ce nekkul loolu moo tax à chaque fois gars yi di ko jël itinéraire mm-hmm. maanaam bañ mu jaar fi nga xam ne moom mooy université Anta Diop gannaaw nga xam ne moom mooy université bi tam foofu euh, dafa bëri ay hôpital ak ay demee noonu mm-hmm. Fann baa nga fa Centre national transfusion sanguine mu ngi fa am na ay clinique privée affaire demee noonu lépp daal lu nekk si boobu la avenue mm-hmm. ba tax na kon euh, yaakaar naa ak foule bi muy ànd ak yooyu mm-hmm. ñu waaw ñu kiyal ko itinéraire tam c'est compréhensible quoi pour man c'est compréhensible ñu tal ko benn itinéraire boo xam ne boo xam ne dafay euh, dafay jaar bu mu ci dellusee comme ni nga ko waxee la pour moytu li nga xam ne kon moom mooy ay ay yëngu-yëngu am ci la mbir mais bu weesoo it ñakk jàng boobu bépp tam kii administrative du am ci ci période boobu tam administration UCAD du dox tamit waaw dañ koy mhm. dañ koy tëj boobule période ba ñu reprendre li nga xam ne kon mhm. moom mooy moom mooy enseignement yi waaw buur mais suñu taxawee foofu ba tey mais comme lañ doon waxtaanee bi passé rek jour yi nga xamante ne ñoom étudiants yi ñu koy perte ñi nga xamante ni ñu ngi waroon a dem am lu ñu defar ak yi ni mel jour yooyu yëpp ñu koy perdre ndax benn ndax benn procès mi nga xamante ni Ousmane Sonko mu ngi koy amal à Mame Mbaye Niang mooy comme ni nga koy waxee saa su nekk est-ce que foogoo ne le 30 bi dañoo war a jeexal bi le procès benn yoon ndaxte tension yi bëri na torop mhm. li si nit ñi di perdre bëri na parce que même avant le 30 bi tey jii seen marché bi ñuy amal gis naa ñu bëri ba may ñëw ñoo xamante ne ni tey tijjuw ñu seen boutique mhm. gis naa ñu bëri ñoo xam ne seen boutique aussi nga gis étudiants yoo xamante ne nii dañ fay am seen liggéey non seulement ñu ngi jàng mais ñu ngi liggéey waaye dañuy obligé ñibbi même bu ñu leen joxul woon vacances parce que man gis naa étudiants yoo xamante ne nii avant seen vacances dès que ñu gis ne Sonko woote na dañuy amal ak manifestation le 29 temps temps da gis si ñoom ñëpp dañoo daal di buub seeni i bagage dem même bu dul étudiants yi am na ñeneen ñi nga xamante ne nii ñu ngi amal ay liggéey yoo xamante ne nii ñu ngi ko war a def mais dañoo obligé bàyyi ko ngir mën a rejoindre benn lieu boo xam te ne ni dina gën a suivre su ñoom mm. parents yi tamit à chaque fois ñu ngi woote ñu ngi woo seeni i njaboot képp ku am kenn Dakar yaa ngi woo di ko naan est-ce que doo ñëw tension boobu yëpp buur nekk lu metti maanaam euh, mën nañu xool comme si man su ma toogee di imaginer damay naan est-ce Sénégal dafay waajal guerre parce que dafa parce que dafa nekk loo xamante ne nii dafa metti à chaque fois ngay gis tension yi du jukk te à chaque fois mu jukk di nga si compter ay mort loolu tamit nekk lu doy waar bi passé rek gis nañ ñu mu fa demee deux décès bu ko ëppul loolu tamit buur est-ce que foogoon ni jot na à ce que le 30 bi ñu jëm ñu jeexal bi le benn yoon. effectivement loolu moom dama ci ànd ak yow fi mu nekk nii moom euh, bile procès daa nekk loo xam ne. Hmm. war na jeex quoi war na war na jeex war nañ ko war nañ ko war nañ ko jeexal. mais it euh, benn daanaka benn kii boo koy xool benn benn jàngat. Mm-hmm. boo ko ci def euh, rapport yëpp booy xool euh, def ci côté Ousmane Sonko la jógee bu ma juumul. Mm-hmm. première bi ay motif xamal la woon boo xam ne ay mm-hmm. daa am yu bees yoo xam ne dañoo conseillé dañoo wara kii dossier bi ma juumul. Mhm. Euh, deuxième bi tam gis nañ ñu demee woon. ba mhm. ñu reporté ko bii tam ñu ngi naan boo moytuwul. xaw ma waaw certificat médical am kii nga diire xaw ma la euh, incapacité am a imagine alors dama si déggaat leneen dama dégg euh, xaw ma laa dégg mu koy wax xaw ma ku maîtriser question judiciaire yi mu naan. Euh, instant yi amatul possibilité ñu renvoyer procès bi. comme que renvoyer quoi mu ne bii yoon xam amatuñu possibilité mu en tout cas moom bu loolu amee moom mooy mooy gënal ñëpp. ñu mm-hmm. àtte ko benn yoon euh, ki am dëgg ñu jox ko dëgg ki ñuy daan ñu daan ko euh, ñu jàll si leneen quoi. Mm-hmm. parce que tam Sénégal mënuñ ko mënuñ jël Sénégal rek kii ko ci benn saa yu Ousmane Sonko amee procès rek. Mm-hmm. wala kii affaire yi benn lu concerne ñaari nit. affaire yi bëgg a moom Sénégal gi yëpp quoi loolu. c'est pas normal quoi parce que gis naa ne daal euh, comme ni ko effectivement war nañ jël seen seen ay responsabilité euh, suba ñu jeexal procès bi mu jeex ki ñu àtte ñu àtte ki ñu jox dëgg ñu jox ko dëgg ki amul dëgg moo xam ne mu amul dëgg ñu daan ko mu jeex quoi mais jeunes yu bëri instant bi soo leen waxee waxee procès bi dañuy naan résistance ñoom dañuy résister ngir mooy nekk comme ni ko Ousmane Sonko di waxee à chaque fois que mu woote il fait appel il fait appel à la résistance parce que mu ngi naan loolu mooy doxal réew sinon kon dañ leen di noot mooy li muy wax à chaque fois ne bu ñu xeexul maanaam dañuy dañuy desee ab euh, nooteel xaw ma ndax noonu lañ koy waxee si mhm, olof wala ñoom daal maanaam jàpp nañu ne ngir bañ ku leen noot moo waral ñuy xeex à chaque fois waaw ah, mais nag euh, en tout cas Asel nu mu mënti demee moom euh, procès bi mhm. pour man procès bi daa war a jeex Mhm. te it euh, jàmm ak dal bi nga xam ne moom la ñu xamee Sénégal. Mhm. loolu dañ ko war a préserver man ko war nañ ko mhm. préserver parce que fi nekk nii dynamique bi ñu nekk nii bu ñu ko bàyyiwul ñii di xëccu ñii di xëccu comme ni nga xam ne day taali rek mën nañu yóbbu mën nañu yóbbu situation bu chaotique. mën nañu yóbbu ci benn. Euh, situation boo xam ne dinañ dem ba dinañ toog di te ko naan bu ñu yëgoon bu ñu yëgoon bu ñu yëgoon mais di moment qu'il est temps nag instant yii nii la war a jël mesures yi nga xam ne war na. atte bi les procès Euh, pouvoir it ñu koy woo yenn saa yi répression yi bëri mm-hmm. ak yooyu ñu koy wàññi ñoom it euh, ndax booy jiital booy jiital boo nekkee njiit yenn saa yi itam day am nooy day am ñoo doxalee Déthié Fall mas na ko fi wax naan ko euh, yenn saa yi nga reculer mm-hmm. nekkul ne da ngaa ragal wala ni mel mais situation réew mooy dem ba am fu mu toll mm-hmm. boo reculer du ragal mais peut-être da nga bëgg a préserver paix sociale da nga bëgg a préserver stabilité bi ak yooyu opposition bi tam ñoom it ñu xam raison garder quoi opposition bi tam ñoom it bu ñu nekk à fois rek Euh, di ko ci di métti rek quoi nay métti nay métti nay métti mm-hmm. ñaari côté yëpp waaw waaw ñaari côté yëpp ku si nekk da nga def concession waaw ñaari côté yëpp ku si nekk yenn saa yi war nga mën a bàyyi dara ne mm-hmm. serait-ce que pour réew mi ne serait-ce que pour Sénégal quoi mm-hmm. nga bàyyi dara pour pour jàmm ji ñu nekk nii mën a mën a mën a wéy quoi am na solo torop duur xam naa dañuy jeexalee rek ak wàllum sport laataa ñu te jéem nag gis nañ ne suñu gaynde yi waa U23 ñu doon jouer éliminatoire mille 2023 gis nañ ne démb daal leen di daanu si kanamu équipe bi di Mali. Mhm. ginnaaw bu ñu leen dóoree 3 buts à 0. ñoom nag match aller bi ñoo dóoroon 3-1 mais match retour bi dóor nañ leen 3-0 bu ñu amoon benn bal sax maanaam ñuy si sax ndax dinañ jàll wala déet waaye gis nañu démb daal nañu di toog. Euh, buur ginnaaw bi ñuy waxee à chaque fois fi nga xamante ne ni Sénégal toll na fa ci football ñu gis ni démb ñooñu lee gaynde waa U23 daal nañu di toog ci kanamu Mali mu nekk loo xamante ni nii nag mën nañ koo jàppee comme genre déception wala dara. parce que sénégalais yi nekk woon loo xamante ni ñu ngi koy xaar parce que ni ñu koy waxee à chaque fois sénégalais jamono yi ñu toll nii dañoo tàmm dañoo commencé tàmm ndam si wàllum football. kon loolu ñu bëri ñu ngi koy jàppee benn déception ma bàyyi la nga indi si ay yaatal laataa ñuy continuer rek. waaw comme comme ni nga ko waxee ci performance performance bi nga xam ne moom euh, nekkoon nañ ci peut-être ñu bëri amoon nañ yaakaar ne gannaaw sax bi bi ñu dóoree it 3-1. Mhm. ci euh, bi ñu bëri amoon nañ yaakaar it mën na match retour bi. Euh, noonu lay demee mais malheureusement demeewul noonu bi ñu demee fekk nañ fa ay maliens yu déterminé ñu fekk leen seen dëkk xam nga gars yi football football ñoom it lu mucc ayib euh, dugal ñu ñetti bal mhm. daanaka victoire seen victoire sax booy xool moo gën a rëy suñu bos moo gën a gis parce que mhm. ñoom fii nii fexewoon nañ ba dugal benn bit mhm. euh, te te bit boo dugal à l'extérieur sax xam nga day compter ñaar euh, ñun bi ñu demee dugaluñ fa dara peut-être bu ñu dugaloon ñu tolloo après ñu xool nañu def ak yeneen mel mais le fait que dugaluñ pénaliser nañu ba fi mu nekk nii non seulement qualifié wuñ ci li nga xam ne moom mooy Coupe d'Afrique U23 bi war a ñëw wante it dañoo ñàkk euh, qualification ci li nga xam ne moom mooy Jeux olympiques. Mhm. Paris 2024 yooyu itam daa duñ fa dem parce que xam nga u yi en même temps ñoom ñooy équipe nationale olympique yu seen réew. Mhm. kon euh, ñàkk nañ ñaar yooyu yëpp ñàkk nañ li nga xam ne moom mooy euh, qualification CAN ñàkk nañ it. qualification li nga xam ne moom mooy euh, Jeux olympiques yi. Euh, déception la comme ni nga ko waxee moom déception la parce que bu ñu sañoon dañuy gagner remporter peut-être euh, dynamique bi ñu nekk. Mhm. mu continuer mais malheureusement seen aventure yi foofu la toll quoi. Mhm. waaw buur xanaa di leen wax ñu ñibbisi rek gën a defaruwaat xaaraat beneen kan incha allah.

jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom yu wër ci bile jamono